baraxlu ba léegi. ba léegi yàlla xam na ko. ah xaw mënuma leen ban bis la fi wàcc na nee mënuma koo mënuma ko xam ko ndax boobu ba tey gisuma ko ma ñëw naa wala mu wàcc ci kër gi. baraxlu ah man de fanweeri at laa jàpp. fanweeri at. Euh, xale bi ñëw na fi ba tàyyi dàq naa ko fi it bu ñëwee sol kap ab kaba jiinam ma ne ko génnal jigéen du fekki góor génnal ci biti mujj gi bu ñëwee du ma nuyu. ma ne ko Assane ah nee na da ko doon day euh, xaritam de la ma wax waaye xam nga ni boo demee bëggante la rek. Mm-hmm. bëggoon na ah, man de xaw ma ñaata at la waaye ah, daaw ba ëpp na daaw ba ren doon na fi ñëw mujj na ñëwatu fi nag temps yi yëpp ñëwatu fi ba Assane tukkee ba tey daana fi ñëw bu ma ubbee néeg bi fekk ko ma ne ko génn leen ci biti génn leen ci biti jigéen du fekki góor Assane ma yaay sama xarit la dañoo toog rek defuñu dara dañoo toog rek. alors moom euh, xale bu jigéen bi est-ce que mus nañ am jafe-jafe seen diggante ba ngeen euh, intervenir. xale bu jigéen bi daal man. yaayam sama sama cousine la ko quoi maanaam Marème sunu jarbaat la boo xam ne dañ ko préparé woon ci lépp papaam da ko préparé depuis mu nekk xale ba ni mu nekk mag mais boo seetaanee vidéo bi yaayu Assane def rafetlu wuñu ko quoi ndax sa doom du rey doomu jàmbur ba pare nga taxaw wax yenn kàddu yi loolu ñaawlu nañ ko mais ñun duñ fi nekk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 ñaari fan yëpp gënu gëmu ma nelaw. da nga gis affaire non gisuma ko ba tey man ay heures yi fi mu laa ko yëg dama liggéey ba wàcc ñëw suñu kër gu mag fi yaay Marème dëkkoon di seet suñu waa kër yi fekkuma fa kenn ma laajte ñu ne ma ña nga fële kër ñoom Marème Diagne ma ñu ne Marème lan rey ma dawal sama oto dem fekk affaire yi jeex na ko ma dem waxtaan ak yaay Marème wàcc ñibbisi mais guddi googu ba biig ak bërki biig yëpp nelaw gëmuma bët comprendre nga kon yaayu Assane bu taxawee ci télé bi wala image ñëw mu muuru di wax naan xale bu jigéen bi dafa daan ñëw même loolu su amoon sax waru ko def ko da ko war a rafetal parce que doomam moo rey suñu doom mu doon loo métti ci moom te pourtant maire bi maire bi xam nañ ko de xoolal maire bi xam nañ ko doomam mi ngi sëy fii suñu ginnaaw kër doomam chauffeur benn benn benn taximan moo takk doomam comprendre ga maire bi dañ koo xam bu baax waa ji ko rey nii magam xam naa ko comprendre ga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 te nit ñi nañ euh, xale bi ñëw na fi ba tàyyi dàq naa ko fi it bu ñëwee sol kap ab kaba jiinam ma ne ko génnal jigéen du fekki góor génnal ci biti mujj gi bu ñëwee du ma nuyu. ma ne ko Assane ah nee na da ko doon day ah, xaritam da la ma wax waaye xam nga ni boo demee bëggante la rek <laughs> bëggoon na ah, man de xaw ma ñaata at la waaye ah, daaw ba ëpp na daaw ba ren doon na fi ñëw mujj na ñëwatu fi nag temps yi yëpp ñëwatu fi ba Assane tukkee ba tey daana fi ñëw bu ma ubbee néeg bi fekk ko ma ne ko génn leen ci biti génn leen ci biti jigéen du fekki góor Assane ma yaay sama xarit la dañoo toog rek defuñu dara dañoo toog rek bi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 ñaari fan yëpp gënu gëmu ma nelaw. da nga gis affaire gisuma ko ba tey man ay heures yi ne laa ko yëg dama liggéey ba wàcc ñëw suñu kër gu mag fi yaay Marème dëkkoon di seet suñu waa kër yi fekkuma fa kenn ma laajte ñu ne ma ñaga fële kër ñoom Marème Diagne ma leen lu xew ñu ne Marème lan ma dawal sama oto dem fekk affaire yi jeex na ko ma dem waxtaan ak yaay Marème wàcc ñibbisi mais guddi googu ba biig ak bërki biig yëpp nelaw gëmuma bët comprend nga kon yaayu Assane bu taxawee ci télé bi wala image ñëw mu muuru di wax naan xale bu jigéen bi dafa ñëw même loolu su amoon sax waru ko def ko da ko war a rafetal parce que doomam moo rey suñu doom mu doon lu metti ci moom te pourtant maire bi maire bi xam nañ ko de xoolal maire bi xam nañ ko doomam mi ngi sëy fii suñu ginnaaw kër doomam chauffeur benn benn benn taximan moo takk doomam comprendre nga maire bi dañ koo xam bu baax waa ji ko rey ni magam xam naa ko comprendre ga